demam nga umpuna mindeef te um na boppub kuy mindeef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñemu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di te di ko sabbaal di ko jox way deeye yàlla bu baax di julli ci nabil Moustapha di sant waaye di ñaanal sëriñ Mountakha xalif général des Mourides yàlla sun borom feqaat aw fanam mu yàggaat fi lool ci ànd ak wér yàlla eggale ay yéeneem ak i mébétam ci lislaam ak ci yoonu murit di ko ñaanal nag njabootu seexul xadim gépp ni ngeen ko gisee rek ñu ànd ko ak sunu kilifa yi ci njiitu sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Aziz ak sëriñ mustafaa Gaynde Fatma ñu gën koo xame ci Moustapha amerig ak yeneen mbokk yi yëpp ñi ci des moom xam naa ñëpp xam ngeen leen ci ndigalu sëriñ Ahmadou Makhtar xalifa Cheikh Mouhamadou Moustapha ak njaboot gépp ñu toog fii fas yéene yéene leeralal leen ci sunu kemtalaay kàttan xew-xew bi mag bii nga xam ne moom lañu ñu dëgmal ci fas ko yéene amal ca muy xew-xewu xew lislaam boo xam ne nam war a toll ak nañ ko yéenee xam nañ ni xat na sax suñ diggante ak fi ñu ko war a amale waaye dayaayu ki ñu koy defal it tax na mu ñoo mukk matale sunu yéene ci lool ci ci ci bis bi waaye nag dafay jaadu dafay rafet àdduna bi xam ci li ñu yéene ak fi ñu ci toll moo serigne abdullah hadmi mi nga xam euh, comité de pilotage bi mo yoré communication bi organiser tay point de presse bu toll ñu leen di wax rek ne ci ndigulul serigne Mountakha waaye ci kilifteefu sëriñ du Maxtaar ak ci ay ndigalam ci lañu ñu taxalee kuréel bu mel nii mu wax nag ne nañ ko yaatal ci njaboot gi nañ ko yaatal ci taalibe yi yaatal gi ci njaboot gi ak ci taalibe yi nag moo waral mu war a egg fu àdduna toll rek ñu yéene mu egg fa mel na ni ngeen ko baaxoo ni ngeen ko xamee ni ngeen ko baaxoo amalee màggal gu jot ci màggalug Daaru Xudus ñu koy woowee màggalug Daaru Xudus muy dëppoog ñaar fukki fan ci weeru Muharram ren jii dafa mel ne de dëppaloo ak téeméeri ati sëriñ bi bi mu ñibbisee Touba ci li ñuy wooye weeru wolof mu dëppoog mille trois cent quarante six ba mille quatre cent quarante six muy téeméeraat ci hijriya mu mel ni kon màggalug Daaru Xudoos ren téeméeri at ci sëñ boobu ci Touba dafa am ak yokkute ndax màggal gi kenn umpuliwut ne Cheikh Moustapha moo ko woote woon doon ko wooteel Serigne Touba amit ay wax yu rëy yu mu ci wax yoo xam ne jar na jullit bu ne mu war caa ñëw buñ doxee nag yàlla dimbali nu ñu dem ba téeméeri at ci sëriñ bi ci Touba ñu koy waajal mu dëppook màggal googu. ca sëriñ ku yilif daru xudus dan ko dan ko jité lolo rek mo war tay ngeen gis ñu fi ci kanam waye magal gi màggalu murid yep la mo mel kon ñun ñi tew fi tay ay ndaw yu serigne Muntaxa lañ ñoo ñun ñi tew fi tay ay ndaw yi yoon murid yep lañu ñu jot ndigal nak ginaaw biñu joté bi serigne Ahmadou Makhtar jotee ndigal ci sëriñ Mountakha xalif général de Mourides ñu jot ndigal ci sëriñ Ahma moo wax ne nañ taxawal kuréel gu mel nii ca bala ñu cee jëf dara muy siiw àdduna di ci jot nañ ku ko war a yëg ci njabootu sëriñ Touba na ko yëg ndax maag ñoom ñoo ci yem loolu it dox nañ ci suñ kemt lay kattan loolu moo waral point de presse bii xëy na ñu yeex ci jublu ndax bëgguñu ñu koy déggandeem ci ay rajo walla télévision xam naa liñ ci war a wax ñi ci war a wax bari na te sunu kilifa ci liggéey bi mi ngi ni toog da ci am loo xam ne dañ ko koy bàyyee waaye na ngeen xam ne ndigal la lu jóge ci sëriñ Muntaxa jaar ci sëriñ Ahmadou mu jox nu ndigal ñu taxawal kuréel bii waaye ci kaw yaatal programme bi nag ni muy demeek yëpp xam naa mbokk yi dañ ci dellusi comme ni ko sëñ Ousmane expliqué léegi màggalu Daaru Xuddoos màggal la goo xam ni daana fi am at yu bari annuellement dadaa am wala loo gis lu ne bu ca dara yokkoo rek am na lu tax ca la ca yokk mooy lan màggal gi ren dafa dajanteeg centenaire bi nga xam ne mooy rappel à Dieu de Cheikhul Khadim ba tey jii ci année hijriya ndax comme sëñ bi moom léppam da koo tegoon ci lu dëppoog la ni Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di doxee te hijra ni ngeen xamé moy ané julit jullit yi moo ren mu dajé te xamna bu dé ci grégorien 1927 ba 2027 normalement moy centenaire bi par kon li de xew moy centenaire ren bi ci hijra lañ ko compté màggal googu nag moo day centre bi loo tax mu amaat beneen changement ak beneen vision boo xam ne nii sëriñ sii fi nekk ca ka ca jiitu mu Cheikh mu Mountakha moom la ba am ci engagement bu rëy bu mu ci jël yéen a yi nag ak xéewal ndax xam na ne sëriñ Touba ko tabax taxawal te surtout màggal gi Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne mooy taawam. moko taxawal ci ku ne war nga xamne ku njëkk togal Serigne Touba amna loolu serigne bi baye te bu xolé ba na bis bi dama koy def ci bayam wóor na kon amna ci ndigalul wajuram serigne mu nak loolu motax bis bi mu dajeeg centenaire mu am taxaway bu reuy bu mu ci taxaw yéen mouride nak ke lepp luñ ci liggéey te mu nek te mu njariñ julli du murid rek mais njariñu jullit yi ndax Serigne Touba moom universaliste la Serigne Touba lu muy def lépp ak lim liggéey lépp du murid rek moo taxoon mu def ndax ba ba ba muy ñibbisi ijaal rujuan ilaa xawmina ilaa xawmi saadatana kon sëñ moom daa yéene daa yéene jàmm àdduna ak jàmm alaxira mboolem ab jullit sëñ Mountakha nag boo gisee mu taxaw bëgg ñu gën koo vulgariser tasaare ko ba àdduna bépp jot ci muritam ak fu ñu mën a nekk ñu war ci am beneen taxawaay bu bokkut ak taxawaay bi ñu amoon loolu sëñ bi da na a yéene ak xéewal ak ak ngërëm jóge Serigne Touba te Serigne ku am ngërëm rek mooy mel na am nga ngërëmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel na ne am nga ngërëmul yàlla ndax Serigne Touba léppam da koo dëppaloo ci yàlla muy alquranil karim ak sunnatu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mës jóg def wala mu liggéey wala mu xalaat lenn loo xam ni ak njabootam la wala murid rek la loo tax Cheikh mu Mamadou mun taxa am ci taxawaay bu rëy te ku xam Cheikh Mamadou Mountakha ak ni mu bëgg Serigne Touba ak ni mu yàggale liggéeyal Serigne Touba ak ni mu toppe magam yi fi nekkoon ak xilaafa yi fi jaar yëpp ba ñëpp mu am seeni ngërëm te teewul mu gën a engagé wu nekkub taalibe Serigne Touba loolee war nañu pousser ñun ñii na xam ne ñoo nekk ci gannaaw di taalibe bu sëñ bi taxawoon buñ taxawoon sax bana dem ci benn rajab na sëñ bi joxe na ndigal na ñëpp màggal màggal gi beneen façon bu gën a am solo jàpp naa ne kurib murit ca mu dëgg sa xol jëruñu la koy fàttaliwaat da nga demaat taxaw na bis bi kat comme que centenaire bi la xalifa bi nii la ko bëggee kon beneen engagement murit war nañ ko am Cheikh Mouhamadul Mokhtar mi nga xam ne moo jiite Daaru Xudoos moom it noonu la ko engagé woo boo njabootam gépp nag njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine baara mag Cheikh Mouhamadou Moustapha ne leen ànd leen ngeen organiser bis bi waaye nag moomu leen ko yéen ñëpp yéen dong ñi ko moom mooy njabootu sëriñ tubaa gépp loolu moo taxoon ñu def benn comité bu ndaw wër Serigne sëpp kenn ku ne ñëw dem ci yow ci turu Cheikh Ahmadul Makhtar wan leen bis bi yaa ngi moom yéen a ca yem ndax moom mënoon naa yëkk téléphone am ay bien am na ñu ci nekk kilifa am ñu nekk seen kilifa waaye pour jox ko dayoo ak respect bu am ci ñoom moo tax mu jël ay doomam ne leen dem leen kenn ku ne ngeen toog ak moom wax ak moom yëgal ko war ko ne ko bis bi moo ko moom te loolu def nañ ko ca sëriñ siñ dem yëpp sëriñ Touba leen jor bi ñu demee tam ñoom ñëpp dañ caa amaat beneen xalaat waxtaan lu bari sëriñ Touba waaye nag waxtaan tam ci li mu li nu gën a neex ci déplacement boobu nit koo dem sëriñ si sëriñ Mourou Moussa fañ ko teg kenn xamul nu mu toll waa kër sëriñ Tuubaa koo ci dem bu la waxtaanee Cheikh Moustapha ak wax dayo bi Cheikh Moustapha am ak liggéey bi mu liggéey ci yoonu sëriñ Tuubaa yi nit bu demee ba say mbokk ñoo mën a def seede yooyu ci yow kon kookee liggéey bi ko bàyyam santoon ak lim defal murid lu rëy la ci ñëpp xam nañ loolu moo tax dem nañ ci kilifa yëpp waxtaan nañoo ñëpp ñëpp jox nañ seen engagement ci ci bis bi comme que kilifa yi nag ñoo joxe seen engagement am neneen ñu ko bëgg a taxawale ku dib taalibu sëriñ Touba ak foo mën a nekk nag muy fii ci biir réew mi wala ci bitim réew war nga faa taxaw comité bi nag bi nga ko taxawalee ay commission lañ def commission bu ne ka ko yor xam nañ ne ñii te commission bu ne dañ caa tànni ñoo xam ni ñëpp xam nañ ne seen expertise ak seen i connaissance ci domaine bañ nekk xam nañ ko ñu boole la fa nga war a bokk ñuy doxal ba tey jii sëñ Cheikh Abdou Bali woote conférence presse bi ndax réussite <coughs> pardon réussite bi gën a am solo ci looy def mooy communication bi ni nga koy vulgariser ba mën a accéder ci ku ne loolu moo tax taxaw na ci taxawaay boo xam ni c'est extraordinaire yaakaar naa ne fii ne tey bis bi ku ko yëgut wala déggoo ko bariwut ci Sénégal ak ci ak à le monde. yemuñu nag ci waa kër Serigne Touba rek ndax si Ahmadou Maxtaram nee na bépp tariixa bu ko war a dégg nañ déplacé ba ci xalifa bi wax ko te ñu ngi préparé pour war a dem ci yeneen tariixa yi yëgali leen ko waxtaan ak ñoom ndax niñ niñ amee sañ-sañ ci sëriñ tubaa ñoom it noonu lañ amee sañ-sañ Serigne Touba ndax ñoo ñoo bokk ma maram te tam relation yi ñu seq ndax yàlla rek muy diina ji ak mbokk gi ñoom ñëpp ñu ngi koy doxal. kenn ku ne la nga am boo koy def da ci séddaale sa morom loolu moo tax sëñ Ahmadou Maxtaar ne ak Cheikh Mouhamadou Mountakha na ngeen dem ci képp koo xam ne nii nituk diina di ci dëkk bi wala nga yor association islamique wala nga yor loo xam ne nii lu lu luy doxal ci réew mi la ñu yëgal ñu yëgal la loolu lépp danañ ko def programme bi ñu tëral nag sëñ Cheikh Thioro dana ci ñëw dana ko leer dañ leen ko leeral

waaye nag nit war naa ñëw génération bu fekki wut ñu ñëw tegale loo xam ne boo ko xoolee boo ko liiree danga nga xam yoon yi fan la jaar ba agsi bi te loolu nag ñu ngi ciy gërëm ak di ci sant ak di ci wax Cheikh Moustapha ndax waxtaan sëñ tubaala la waaye Cheikh Moustapha dana ci feeñ baax a baax ndax ñëpp ko bëgg ñëpp bëgg mu feeñ ci mbokkam yëpp bëgg ñu feeñ ndax li ko sëñ bi dénkoon li ko sëñ bi joxoon mu matal ko na mu gënee ak na mu gën rafete loolu moo tax tey jiitam nii yoon wi mel ak ni muy doxee yàlla def ci tawfiix ak baraka ma terminé ci ñett point yi nga xam ne moom la ko waajuram joxoon mu mu réaliser ko na gën a rafete mooy indi sëñ bi jëlee ko njaareem indi ko Touba te benn autorité coloniale du ko tiim pexe yam jël nak ak astuce yak yeb ba def ko ci xel la ko tek ak ñam ko andal ca ka ca gën a ci àndandoo ba serigne basirou Mbacké rakam nak ñom ñaar kep ku ne xam na Cheikh Moussa ak serigne basirou niñ melone sëñ Mour Moussa léppam sëñ Bassirou la woon fu mu jëm moom lay àndal kon bu ñu demee ba centenaire bi ñëw mu doomi sëriñ sëñ sëñ Bassirou fi nekk Serigne Touba en même temps kon sëñ Mountakha taxawaay bii taxawaay bu rafet la ndax kët nit kat buy départ nga yëkkati 100 millions jox ko 100 millions tegal la ci table ne la dem leen ngeen liggéey liggéey bi kooku xaj na bëgg na yëf ya sotti rafet te murit yëpp jariñoo ko jullit yëpp jariñoo ko ñaareel ba jumaa ji nga xam ne fierté la pour l'islam Serigne Touba moo ko wax si doom ji Cheikh Mamadou Moustapha na fexe ba. ba taxaba taxawal ma sama sama juma ji la ci sëñ bi wax yëpp ñëpp xam nañ ko bu ngeen ko defut ñeneen dañ ko def sëñ Modou Sa momit man damay faral wax ne euh l'autorité coloniale bu xamoon ne bu joxee Cheikh mohammed Moustapha autorisation juma ji dana taxaw parce que ñoom jàppoon na ne Cheikh Moustapha même buñ ko joxe autorisation du mën a réunir toutes les conditions nécessaires pour la construction de la mosquée pour ñoom échec la jëm ci échec la jëm waaye ne bu xamoon ne réussite bii dana ko am dana ko tabax kon duñ ko duñ ko jox autorisation bi waaye ne def na ko ba ba ko la ca desoon mooy njabootam gii njabootu boppam ak njabootu taalibe yi buñ dee njaboot gi rek boppam a ngi ci moo jiitu njabootu mooy ak taalibe yi te ku gis xam ne Cheikh Moustapha taxaw na njabaru sëriñ Tuubaa gi dajale na leen ba nëkku sëñ bëggoon mu def waaye itam taxaw na murid yi ndax tey lii xew ci kër yëpp Seex Musaa la kon en premier lieu bu sëñ Tuubaa jàllee bañ wax ci moom danañ titiller tuut nag l'histoire ci liggéeyu sëñ Tuubaa ak exil beeg yu mel noonu ci à travers les conférences wala yu mel noonu wante l'objectif principal bi yëpp mooy sëñ bi bi ñëwee fii ak bañ denc ko

def benn topp ci gannaaw président daayira bu nga xam ne moo fa toogal Serigne Touba ñu def màggal goo xam ne xaj nañ ne daa nañ ko def mais du bokk rek nañ ko def ndax ni ko sëñ bi bëgg la. mbokk yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziare te yëkkati kàddu ci turu jëwriñ yi nga xam ne ñoo jiite commission culturelle te sëriñ moo du Bara moom Serigne Abdoul Khadim nekk ca bopp ba ak al imam. sering Mbacke Abdourahmane ak euh, sering Cheikh Mbacke Niang inspecteur serigne Cheikh Mbacke Niang bu serigne Modou Mamoun xamna naa am gant ño warona tew fi jotli bëgg jotli kon jotli gi ma koy jottali ci seen digël la koy jotlé di sante bu baax sunu borom subhanahu wa taala minu boole ci liggéey bu tedd bii mu du liggéeyub yàlla di liggéeyub Cheikhul Khadim ni ko kilifa yu baax yi njëkk jël kàddu te doon jëwriñu liggéey bi noonu ñu ko xef foofu rek la ñu sof suñ kàddu euh, centenaire bi nag ni ñu ko xamee danañ ko defee ci ñetti ñeenti barab yu bokkut ci waajtaay yi Touba lañ koy ubbee le 13 juillet 2024 incha allahu Fi ci darul manan ci barab bi ñu nek suba gi ak ngon gi euh, le 13 nak ci suba gi ci lañuy waxtane ki nga xamne ne Cheikh mamadou Moustapha ndax mom moy ki nga xamne mom le serigne bi santone mu andi ko Touba waxtu sun borom ñewé akub dogalam mu def ko nak ci anam yañ ko ko sante woon yépp nuy faral di wax ne sëriñ bi moom fu mu nekkoon fu dul Touba rek foofaay mel ni Touba mel kon nag cooyo na yi Cheikh mustafa daj ak lam ca jànkonteel ak pexe ya mu def ba indi ko te xat damut loolu moo tax bis bu njëkk bi ci suba gi ñu jagleel ko ko lañ fa war a waxtaane nag moo di Cheikh Mouhamadul Moustapha dimension yu wuute yi nga xam ne moom lañu war a waxtaane ci moom moo di maanaam am njàngam wala xam-xamam ak mbindam maanaam fan la jaar ci njàng ci xam-xam ak lan la bind nu mu doon communiquer nu mu doon waxee ak nit ñi loolu ay discours am ak mbindam yëpp mi ngi ci biir ku ñuy wax al imam Serigne Moustapha Diop Cheikhou Jëlay incha allahu moo koy waxtaane fii ci barab bii ci suba gi euh, bu noppee itam danañ waxtaane dimension spirituelle maanaam moom ni mu doon dunde diine ak ni mu doon yaree maanaam ni mu meloon maanaam nitu diine ki mu doonoon loolu sëriñ Ahmadou Mbacke bu Darou Mouhty moo koy waxtaane bu noppee ci loolu ñu waxtaane dimension sociale am ak ni mu doon jiitee xerañte yi mu amoon pexe yi mu amoon ba jiite yoon wi gannaaw bu fi sëñ Touba jógee mu nekk fi ak i waajuram nekk fi ak i rakkam nekk feek seex yi nga xam ne yëpp ñoom la Serigne Touba defaroon mu taxaw temm ci 40 ans ci ñeent fukki at mu taxaw wuutu sëñ bi fexe ba ñoom ñëpp ñu topp ci gannaawam ànd di liggéeyal sëriñ bi ak ni mu doon jëflantee ak tubaab yi fi nekkoon ca jamono yooya ni mu doon jëflantee këri diine yi ni mu leen doon jëflantee ak àdduna xerañte googu mu ci amoon ci jiite loolu danañ ko waxtaanee sëriñ Moustapha Diop Ndar moo koy waxtaane incha allahu loolu mooy. Euh, loolu mooy moo mooy suba gi ci ngoon gi ñu waxtaanee lu jëm ci Touba ak édifice yi nga xam ne am na ko yoo xam ne yu diine la moo xam ay jàkka moo xam ay ay ay juma moo xam ay jàngukaay alxuraan moo xam ay ay jàngukaayu xam-xam yum ci doon dees na ko waxtaanee euh, ka koy waxtaane mooy Serigne bu sa Assane euh, waaye ci ngoon googu tamit. sëriñ Xaadi Jaxate dana waxtaane njàngalem alxuraan ak njàngalem diine ci Touba ni fi demee sëriñ Xaadi Jaxate moo koy traité loolu mooy bisub le treize bi bu ko defee le quinze moo ci topp Louga la ñuy dem incha allahu Louga itam des na fa waxtaane ñaari tem ndax bennoog bennoog maanaam jullit ñi murit yi dañ cee yàgg a daj ay coono ngir jullit ñi doon benn ndax dafa bokk bokkoon ci recommandation wala dénkaane yonent bi sallallahu alayhi joxe woon mooy daa bëggoon jullit ñëpp doon benn wax wahdatul muslimina ndax bi ñu jógee ci xasootu badrin sax lim leen njëkk a wax mooy jóge nañ ci xeex boo xam ne li nu war mooy boole suñu bopp nekk benn ndax mooy tax nu mën a non not noon yi te lislaam fu mu àgg ak bennoo moo ko fa àggale loolu bokk na ci lañ fay waxtaanee. sëriñ Bassirou Mbacke moom sëñ Cheikh Thioro moom Cheikh Mamadou Amine moom Cheikhul Khadim moo koy waxtaane euh, buñ ca jógee itam xam ngeen ne fu demee ne luga euh, dañ faa war a waxtaane itam maanaam lu jëm ci fàggulu lew fàggulu lew ni ko sëñ bi waxee kasbul xalaal ak gisiin wi ci yoonu murit am loolu sëñ Cheikh naa bu sa cumb leen moo koy waxtaane kay moo dere jataay ba itam moo di sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Aziz ci loolu mooy mooy Louga suñ fa jógee itam njaareem la ñuy ñëw le 20 le 20 njaareem ñaari euh, waxtaan ñoo fa am mi ngi jëm rek ci résidence surveillée bi nga xam ne fukki at ak juróom-benn yi sëñ bi nekk njaarim ni mu ko dundee ndax xam ngeen ne njaareem mooy barab bi nga xam ne fi la sëñ ba gën a yàgg ci àdduna ndax amul fenn ci àdduna foo xam ne sëñ bi am na fukki at ak juróom-benn njaarim mooy fi mu gën a yàgg ci àdduna fa la amee jotug toog taaliba yi di ko fa fekk ba mujj man nañ ne kilifa yëpp dañoo amoon kër njaarim njaarim nekk capitalu mouridisme boo xam ne fa la ñëpp doon daje ci ci ci wetu sëriñ bi euh, loolu nag ka nga xam ne moo koy waxtaanee mooy docteur Khadim Silla kon fukki at ak juróom-benn yi sëñ bi am njaareem sëriñ Khadim Silla moo koy waxtaan docteur Khadim Silla buñ fa jógee itam euh, sëriñ Mbàkke Abdourahman dana waxtaanee ci thème boo xam ne moo jëm ci xutbatu wamsasin ndax xam ngeen ne sëñ bi ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru muharram 1346 ci tàkkusaan gannaaw tàkkusaan la mujj génn ci mbooloo ba mu génnee itam te dajale mbooloo ma ba ñu daje dafa am benn xutba benn waxtaan woo xam ne moom la waxtaan ak ñoom waxtaan woo nag waxtaanu dàgg toola ak waxtaanu dénkaane gannaawam. solo su waxtaan woowee am moo tax ñu wax sëriñam Mbacke Abdourahmane ne ko na ko waxtaanee waaye dugalaale ci nag maanaam ñibbisi sëñ bi ndax ba loolu amee ba mu fatu génnaatut ci mbooloo ba ni ko fi sëñ mu saa jëlee indi ko Touba ci lay enchaîner nag waxtaan ci pexe yi sëñ mu saa def ba indi ko Touba ña ko fekke ak indi gaag na mu demee loolu lépp ci la koy waxtaanee loolu mooy eh, njaareem waaye njaareem xam ngeen sunu mbokki Baay Faal yi ci le vingt dix neuf lu jiitu la la la levée ji le dix neuf dafa am ngont moo xam ne ngontum Cheikh Ibra Fall la ndax biñ ko waxee xalif général des Baay Faal te yëgal ko ko dañ cee bëgg lool mu am yéene itam ci mobiliser mbooleem daayiri sikkar yu aju ci kër Cheikh Ibra ci ngoonu fukki fan yeeg juróom-ñeent ba set di ñaar fukk ci mois de juillet mi 2024 euh, bi ñu jëm nga xam ne dañ koy dañ koy yendoo sikkare sikkar ba. keroog ñu ñu ñu ñu jeexal loolu itam muy ngontum Cheikh Ibrahima moo xam ne ci la 19 ji lay lay am bët set di lave di ñu traité thème yi ma wax léegi. Euh, bu ko defee ci euh, le 21 nag euh, mooy doon ndakaaru ndakaaru nag juróomi waxtaankat am na fa ndax des na fa waxtaanee lu jëm ci. Euh, maanaam dimension sociale ak euh, environnementale bi nga xam ne dëkku Touba am na ko maanaam euh, Touba ni mu ni ni ni mu maanaam fi mu àgg ci wàllu social ak wàllu environnement loolu lépp docteur Sambousa moo koy waxtaanee bu ñu ca noppee itam contribution bi yoonu murid def ci wàllu tarbiya ruhiya maanaam yar nit ki defar ko tarbiya ko ba spirituellement. mu mën a mu mu jag ñu mën ko wane fu ne mu mën a defarewaat loolu itam euh, li ci tuubaa def li ci euh, contribution bi mu ci def loolu Serigne Mbacké Lo moo koy def suñu noppee itam ci loolu docteur euh, Abdoul Ahad dana waxtaane ci contribution bi nga xam ne yoonu murit am na ko ci wala yoonu murit am na ko ci njàngale mu mu yees mi njàngale mu yees mi ndax xam ngeen ne dafa am njàngale moo xam ne njàngalem diine la am na njàngale majalis waaye am na beneen façon njàngale moo xam ne itam Touba dafa am wala yoon wi dafa am taxawaay yu am solo yoo xam ne taxaw na ko ci yooyu docteur Abdoul Ahad Lo moo koy moo koy waxtaanee waaye itam des na fa waxtaanee contribution bi nga xam ne yoonu murit am na ko socialement et économiquement loolu docteur Jibi Jaxate moo koy waxtaanee ndax loolu itam lenn lu nekk yi yi ma wax yëpp nag mooy gannaaw bu fi sëñ bi jógee biñ ko andee Touba. ak léegi lii ma wax lépp mu ngi aju ci biñ ko indee Touba ak léegi lan la ci ay xalifaam def sëñ Modou Moussa sëñ Fallou sëñ Abdoul Ahad sëñ Abdou Khadir sëñ Saliou Cheikh Mouhamadul Amin euh, euh, sëñ Sidi Mokhtar ba ci sëñ Mountakha ba ba ci doomam yi nga xam ne sax duñu ay kalifa waaye contribuer nañ ci loolu ku ci nekk boroom xam-xam yi luñ ci àgg danañ wax ñooña lañ la la lañ ca def waaye itam des na waxtaan ci Touba ci développement bi mu am maanaam nga xam ne yokkute gi mu yokku. loolu euh, euh, docteur Cheikh Guèye moo ciy waxtaan ki nga xam ne nag mooy modéré jataay boobu mooy sëriñ Mamor Hamdi kon loolu mooy waxtaan yi nga xam ne mooy am ci euh, ñu tàmbalee ko Touba ba Ndakaaru waaye xam ngeen ne bu ñu màggalee ba ci suba yi ba ci suba itam am na cérémonie religieuse boo xam ne dañ koy amal mooy bi su màggalu daar Xudus gi ba ca suba sa boo xam ne li ñu waxtaanee Touba ci le treize waxtaanee ko Louga. le 15 waxtaane ko njaareem ci le 19 ak la le le le 20 waxtaane ko Dakar vingt 21 loolu am na tënk bu ci commission culturelle bi di def boo xam ne ci euh, cérémonie religieuse boobu lañ koy gaarale waaye itam kilifa ya fa teew danañ ca sànni kàddu moo xam ne xalif général des mourides yabal moo xam ne autorité yabal waaye itam sëriñ Ahmadul Mokhtar dana fa yëkkati kàddoom kon loolu mooy jëmmi cérémonie religieuse bi kon loolu mooy programme bi nga xam ne tënkoon nañ ko. ñu di ko jot li ci commission culturelle bi nga xam ne sëriñ Modou Bara Mbacké moom sëriñ Abdou Khadim moom Cheikh Mamadou Amine moo ko jiite te ñu am ngant ñu sant ma ma jot li ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. demam nga ump na mindeef te um na bopp kuy mindeef kudul malaaka ya ko wóof ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca demiinu yonen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàq